Thiès lan ma waral tànk yi ak xeex euh, xoqatal euh, yi teg jigéen yi lan nga si seen taxawaay. waaw man la Abibatou Silla Sow di présidente mouvement national des femme bu confédération des syndicats autonomes tey nag danu ñëw Thiès fii nga xam ni dëkku jàmbaar la. jëkk jàmbaar fàq tëdd la ñëw ànd ak sunu mbokku jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Thiès ñi nga xam ñoom ñoo bokk CSA mouvement national des femmes ñëw ñu àndandoo pour def Ben, xew-xew ban xew-xew lañuy def dañuy célébrer li ñuy wax 16 jours d'activisme mi nga xam ne dafa commencer le 25 novembre war a jeex le 10 décembre waaye liñ ciy def nag wéetuñu si ndax jigéenu CSA ñoom ñëpp ñu ngi nii koo ci gis ñëw na takk na sa euh, sa sa sa échappe. di wax Oranger le monde Oranger le monde daf ñu yokk dëgër laay ba tax na bi ñu ñëwee fii tey Thiès fekk nañ fi lu ñu neex parce que fekk nañ fi les représentants de l'État comme par exemple.

ak euh, bi ñuy def ci góor yi ci jigéen ñi ak ci xale yi dina dakk loolu daal moo ñu fi indi woon tey lu ngeen ñaax nguur gi peut-être euh, waa nguur gi moom liñ koy ñaax mooy dañoo bëgg rek nguur gi dañ leen di ñaax ni leen nañ ñëw fekk si ñun ay femmes syndicalistes lañu bi nekk ay femmes syndicalistes dañu booloo suñu bopp ci biir centrale syndicale yi ñuy def ay plaidoyer di xeex lan mooy euh, di di di di jéem a jigéen ñi di leen protéger di leen wax lan mooy euh, métital ñu xam d'abord lan mooy métital de buñ nga xamee nañu boole ji nañu wax boo xoolee Sénégal 2019 euh, bi euh, bureau international du travail dafa adopté lu ñuy wax convention numéro 190 mi nga xam ne day xeex violence ak harcèlement ci bërëbu liggéeyukaay mais bi mu koy xeex bi mu ko defee 2019 adopté ko ba tey Sénégal ratifié wu te pourtant jigéen ñi góor ñi syndicat yi taxaw nañu àndandoo liggéey nañu. société civile pour teg président de la république qui, bi nga xamni mo wara tax mu ratifier convention numéro 190 ministère de la femme and na ci xeex bi ministère du travail and na ci xeex bi kon nak dese lu président de la république état du Sénégal mu ratifier convention numéro 190 bu ko défé violence ak harcèlement jeex ci bërëbu liggéeyukaay kay mais loolu kese ñun du ñu si parce que ay jigéen lañu dañu nek ay jigéen dañu yor ay doom donc dañuy lekkelo encore ak ministère de la femme ba nga xamni violence. si nga xam ni mooy dal si jigéen ñi ak ci xale yi ñu dindi ko ba faw te loolu euh, ñu ngi ciy liggéey boobu ba tey foog naa ni am na solo te ñaan nañu yàlla léegi léegi loolu mu am njeexital. sa jox ngeen gëdd seen jigéen ñi moo tax tey ngeen ñëw gunge leen lan ma war a doon seen taxawaay pour que quand même méttital teg jigéen ñi muy jóge fii Sénégal donte Sénégal. Euh, champion la loi texte convention Les la ñuy signé moko ñëpp signé. waaw ñu euh, la presse de Thiès qui nous a permis en tout cas yeen ñu ñu nous euh, nous ñu ñëw encore ci rassemblement bi exprimer wu pour wax vraiment ñu ngi nous jigéenu Thiès yi nga xamné recevoir jigéenu CSA d'une manière générale jigéenu CSA yépp Euh, di rafetlu lolu di wax euh occasion le tay pour mouvement national des femmes à travers Aïda et la présidente euh, Abibatou ñu magnifier wat liggéey bi nga xam ñu ngi koy def pour xeex métital li nga xam ñu ngi koy tek jigen ñi ak ndaw ñi lool nak buñ koy wax ñun engagement biñ ci mëna a jël moy vraiment accompagner len ci combat bi accompagner len ci combat bi yemul rek ci ay slogan dañu wara a continuer combat bi ba ñu xam convention bi ñu tuddé convention 190 yang koy wax légui Sénégal champion la ci ratifié ay convention mais convention bi ratifié guñ ko euh, le 1er mai bi passé le président de la république avait promis que nous ko ratifier, et en tout cas jusqu'à présent ratifié guñ ko te ngi waaj dem yaakaar nañ ne bala muy dem xéne na ko def cadeau pour jigen ñi benen bi mooy waruñu yem rek ci ratifié dañu a mais mettre en œuvre li nga xamné moy solos convention yi maanaam fexe ba vraiment violence dootul am ci ndaw ñi dootul am ci jigéen loolu vraiment ñu ngi encore euh, ci turu bureau confédéral magnifier liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy def ak suñu jigéen ñi di leen jaajëfal di leen encourager di leen wan ne ñu ngi seen wet ñu ngi seen kanam ñu ngi seen gannaaw et lépp luñ ci mën dinañ ko def pour dooleel la waaw élection yi moom ñu ngi ci waajtaay yi yaag waajtaay yi sax daanaka weesu na parce que ñun presque depuis deux mois ñu ngi ci waajtaay yi maanaam préparer nañ ko daal ay weer ci gannaaw parce que def nañ tournée nationale boo xam ne permettre nañu département yi nekk Sénégal yëpp ñu teg fa comité électoral 46 départements yi ñu a à Dakar dañ ko mujj def ay arrondissement parce que Dakar dafa yaatu et bu fu ci nekk camarades yi nga xam ne ñooy nekk ci comité yooyu ñu ngi wër service yi ak entreprise yi ak fépp foo xam ne liggéey a ngi fa pour saafonteeg ñoom wax leen programme mu CSA lan la CSA namm bu fekkee ne jël na première place ci élection yi c'est ça lim nam mooy def ay réformes yu am solo yoo xam ne dina permettre liggéey yu précaires yi nga xam maanaam liggéey yi nga xam ne nit ñi dañu liggéey duñu fayeeku mbaa dañuy liggéey duñ leen inscrire euh, IPRES duñ leen inscrire euh, caisse de sécurité sociale buñ accidenté na na yéex duñu faju mbaa bu ñu feebaree duñ liggéeyul duñ leen fay seen salaire donc réforme yooyu pour CSA gën ko mën a impulser yaakaar nañ ne dañuy yaakaar dañuy woo liggéeykat yi ñu voter massivement pour la CSA pour ñu mën yegg ci euh, vraiment loolu ci unité ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay sympathisants nekk ay militants wu CSA yaakaar naa ne partout en tout cas ci biir Sénégal gis nañ ne engagé wu nañ ci liggéey boobu pour que CSA euh, mën a am vote yi ñu permettre ñu yeggale liggéey boobu. ñoom jafe yi ngeen demee ci processus bi feneen ba ko Thiès. waaw mais à Thiès gisuñu ko woon au départ mais camarades yi ñu représenté ci comité électoral bi euh, yaakaar naa ne def nañ xeex bi ba vraiment carte électorale bi yaatu na. yaakaar naa Thiès defe est-ce que matul sax 131 bureaux de vote dans tout le département donc cela veut dire que élargir nañ ko li ci euh, le jour J, camarades yi ñuy représenter ñu vigilant le ba euh, vote bi jaar dans la transparence et que le maire gagne et que au soir du 12 Aïda que la CSA sorte vainqueur au niveau de la, du département de Thiès et au niveau du Sénégal d'une manière générale. Merci, merci, merci. bonne chance. <laughs> <laughs>